petit papa naa la Bayane. ça va. yaa ngi ci alhamdulilah loo jaay tànnal. ah kii Seexu Seexu ak suñu Mbàkke. Seexu ak suñu Mbàkke ah ñoom boo jaay looyee boo jaayee Seexu Seexu boo ko jaay looyee dem jox ko benn xale bu jigéen moom Cheikh mooy def loolu. suñu bàkk suñu bàkk suñu bàkk dama dem xool xool benn kër googu comme ay groupe nit nit ñu baat mu jox leen ko. waaw boo tax saa bi xam nga amatoo dara dara dara ay sàcc di yóbbu di yóbbu ñoom booy ay sàcc lañ ay sàcc ay sàcc parce que téere maam yàlla ay sàcc nañ. sàcc ak ay. Amariko i. yow yow xam nga dégg naa la nga nga naan yow man si mbàkk ay sàcc la yow yow loolu moo da nga wax man si mbàkk ay si mbàkk si mbàkk si booy booy bee ke ke ke nee na daa ñëw nga wax ñun ñun ay sàcc la i tay ma la fe mu wax ko mu wax mu ne ko dàq xale yi ay sàcc la waxul dëgg kooku waxul dëgg booy boobu daa seytaane dafa seytaane dafa seytaane. yow yow kat nañ dem seeti boobu ñu ñu ñu jàpp ñu nokk ko mën. nañ def ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw nañ dem seeti nañ nañ def kii daa réew kii mu góor daa réew. yow xaaral xaaral. soo soo. xew man danaa ko wax Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci góor gi Seexu Taaboy. xoolal ana wa ñaamuuma. ma lay jaay ci góor gi. waaye sëñ Mbàkke ak Seexu yii ñoo koy jaayal. kii moo ñu toll. moom dara taxaw eh, kii lan la leen def laa wax. kii daa suñ suñu nijaay wa ñaamuuma. daa daane ko mu dàqu ñu mën a ndax nee na dañuy sàcc tàndarma. du dëgg du dëgg bu may na dëgg la yow yow. du dëgg ñoom ñoom bëgg a dóor du dëgg. yow boobu ba léegi ma yónni nga nekk ci di taxawal. yéen kii xanaa xamul leen sama rakk la kii kii kii dañoo tooñ dañ kaa bëgg eh, la bëgg ngeen tourné ngeen dem seen yoon moom tooñ moom eh, li ma leen wax mën ngeen ko wala mënoo leen ko moom tooñ kaay kaay sama du baañ départ leen fii leen kaay leen eh, yow oh, oh. kaay kaay leen pusal kaay sama du baañ xale yu ndaw ne ci koñ bi yabaate bay bëgg a dee moom tooñ moom tooñ yéen genre moom moom tooñ moo leen jàppee laa la wax sama papa